ci wàllu euh, li ñuy wax euh, fagaru ci wàllu cancer ween ak cancer bu tiñurukaay bu dee cancer ween bi li ci am gën a am solo mooy li ngeen di dégg ñu koy wax ci campagne yi surtout ak waa LISCA ak ministère bi mi muy wax autopalpation maanaam jigéen bu ne. bu demee ba gis mbaaxam ba pare war na mën a saytu ay weenam làmb ko pour xool ndax am na lu mu ciy daj bu dee daju ci dara amul benn problème bu fekkee ne dafa am lu mu ciy daj loo xam ne li néew ci woon day laaj ma dem kër docteur pour que ñu saytu ko defal ko ay rajo wala ay analyse pour xool ndax loolu feebar la wala leneen la li ci des mooy li ñuy woowee mammographie mammographie nag benn rajo la boo xam ne bi euh, dañuy rajo ween bi xool ci biir ween bi ndax dinañ ci gis loo xam ne lii nuru na lu nar a indi jafe-jafe ci wàllu feebar boobu bu ko defee bu fekkee gis nañ ko ci day laaj mu continuer ak spécialiste bi pour mu xool euh, ndax cancer la walla du cancer. bu dee nag beneen cancer bi ñuy wax cancer du col de l'utérus mooy cancer bu butitu njurukaay kooku day laaj li ñuy wax vaccination. vaccination bi mooy dafa am ñàkk boo xam ne bi léegi dañ koy ñàkk xale jigéen yi. te loolu day tax bu ñu leen ko ñàkkee dinañ mën a moytandiku feebar boobu parce que ñàkk boobu day faj benn day euh, gaar benn infection bu ñuy wax human papilloma virus te boobu infection boobu moom mooy joxe cancer donc bu ñu ñàkkee nit ki amaan na lu am cancer bi loolu la amoon lu ma ci wax ci wàllu fagaru bi ci canceru ween ak canceru bu ci tujurukaay bi